jublu ci liggéey bi rek te dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañee ci kenn ku ne noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam da ngay bind moo xam da nga yor télé kuy wootewu journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste laa rek liberté de la presse mun naa xay bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi jeex na takk dem leen ngeen liir code de la presse article 13 xaw ma article 14 wax na lan la ñu tere journaliste xëy dem jël ay affaire bind naan dañoo daq général sàngam Sonko ko daq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk ful la ñu ne ñu woola ne la fan nga jëlee sa preuve nga naan benn sit internet bu nekk Delaware xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul noonu journaliste bu ci am preuve na ko def ko une bu rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma xaalis wala jomaay neexuma wala Masamba wala Demba dinaa bind lu ma neex ci moom suñ ma woowee ma ne la de la presse presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul président de la république sax amul liberté boobu président de la république mi ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté boobu au nom de quoi ab journaliste jàpp ni am na boobu droit du dee am nañu fit la ñu bindoon nañ ko bindaat